mais surtout waxtaan bi ci des ak moom sànq ñëwoon na ci point yu am solo mais on va continuer Daouda ak d'autres questions euh ñu ko bëgg poser tay euh, parce que dañu bëgg lépp leer bala muy dem. tourisme loolu la mais John c'est Wilson ah. Wilson moo des. oui Wilson. ah Wilson waay. Wilson. bu leen wax kenn ñaari nit ñi sax sa bëgg a sonn Ndiaye Ndiaye di nga sonn di ngeen di jël ci lu bëri xëy na sañ seen ay. ministre bi la wala chef bi moom kenn ko biir. oh jarab ku la sañ seen. Samba moom a Samba moom a sañ seen say. bu fekkee ne nit ñi dañu jub kilifa boobu wax mu bàyyi parce que dafa jàpp ne nit ñi dañu war a jub deuxième principe bi moo li ñuy wax principe d'accaparement ñi dañuy wax dañ koy jël fu ci wax ci ne wax boobu ñuy wax dafa am lenn muy génne ci ñoom te loolu mooy tax nit ñi tey du fajal boppam parce que dañ koy may opportunité mu génne la nekk ci moom. Mhm. donc bu ñu demee ba principe d'accaparement jeex ñu ñëw si li ñuy wax principe d'étouffement coow am na nit ñi wax nañ coow day nag ba principe d'étouffement boobu jàll réussir li ñuy ñëw si li ñuy wax la volonté de puissance.

waruñu def amuñu kenn Sénégal koo xam ne def nañ ko loo xam ne justifié na mu génn di yàq ak mm. loolu amul ñu ngi leen di mën a jëlee ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay yu man sama kaa dafa xaw a wuute ak moom parce que kër yu ñu mel. même chose wax naa ne que man bu fekkoon ne rajo wu ma jusqu'à l'âge de 65 ans je n'ai pas le droit de m'exprimer en public. mais deux mille dana donc tey li ñuy def dañ koy teg ci yoon teewul kenn mu daal teewul kenn mu exprimer xam ne mosul am problème il faut que ko def ci légalité